asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di am contentement ak mbégte comme ça su ne niñ koy defee. Mhm. ànd ak yéen ngeen choisir la chaîne leader. Mhm. chaîne askan wi Dakar People seen dundin ak seen nekkin ñuy ànd ak yéen di siiwal di feeñal ak a boroom borom xam-xam fépp fu mun a nekk ci biir réew mi. tey nag amaan nañ contentement ak mbégte beneen yoon dalal seen xarit seen soppe ñu xam ko si. sëriñ maa liggéey mu sëriñ Saliou mu nekk jàngalekat lépp li nga xam ne laal na wàllu diine rawatina xam-xamu asraar. Mhm. mu nekk kilifa boroom xam-xam bu kenn dul naatable. Mhm. ñaankatu yàlla bu ñu ràññee ci biir ak ci biti réew mi. Mhm. sëriñ Malick Guèye mu sëriñ Saliou nuyu nañ la. waa ñu ngi leen di fay sëriñ Matar di ziar sëñ Moussa ak mbooleem waa chaîne bi yëpp rek. di wax baada auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. alhamdulilahi alquddus fi xaybil haahut almutajalla bil asma wa sifaat fi xadrati llaahut almacbuud fi aali malakut wa jabarut wa naasut wasalaatu wasalaamu ala man imbasadat fi haadihi almaratib alxams wa kul man amana min aljin wal ins ñi ngi nuyu mbokk yëpp di sant yàlla di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di leen ndokkeelaat bu baax a baax a baax di leen wax ni ngeen ko xamee rek seen mbokk seen xarit Serigne Malick Gueye di abdan mamlukan laa yaqdiru ala cheyin waaye ñu koy dàkkantelee Serigne Malick Gueye mu Serigne Saliou kon fay nañ la nuyoo Serigne Matar. Serigne Malick Gueye ñu ngi lay daral fii sa chaîne Dakar People comme daanaka saa su ne ni koy defee. Mhm. ñëw seet si la pour am ak yow waxtaan laaj ak tontu. Mhm. waxtaanee xam-xam. waxtaanee pàcc yu bëri ci mbiru xam-xam. Mhm. waaye tamit waxtaanee jafe-jafe yi nga xam ne day faral di nekk gàllankoor. si jaamu yàlla yi te saa su ne bu newee gàllankoor si ñoom. seen xel du jug mukk si saafara. Mhm. lu dul jëmm yu mel ni Serigne Malick Guèye. Mhm. Serigne Malick Guèye tey suñ question bu njëkk rek bëggoon naa ñu amal ko ci benn sujet bu xaw a complexe. Mhm. boo xam ne des fois sax day daanaka day jur ay coow. di jur ay divergence yu bëri bëri ci wàllu Serigne. muy mbiru rab. Serigne Malick liggéey tey ci tënk ak leeral lan nga ñu mun a wax ci mbiru rab lan mooy dégg-déggi rab rab tey ji ana. lan mooy ay manifestation am tey mm-hmm. lay duggee ci nit mm-hmm. bu demee ba dugg ci nit ana yan jaaruwaay nga war a jaar tey ji pour suñu borom saafaraal la ko mm-hmm. waaw euh, Serigne Moussa euh, Serigne Matar di moins euh, dafa am loo xamante ni danga koy faral di dégg ci boroomi xam-xam yépp nag ñu ci werante waaw werante nag ci diine ci diine lañ ko fekk maam même charia sax gars yi dañ ci werante wante nag définition wu moo moom ñaari werante du ci bari rab amul jinne moo am ndax yàlla li mu wax wa ma xalaqtul insa wal jinn illa li yaabudun kon ñoo bokk benn atte mm-hmm. léegi nag olof wax nañ ne li tax muy wax rab mooy bula la defee ay crise nga daanu nañ da ngay rëb-rëbi rëb-rëbi boobu baat nga utiliser ñu ne maanaam ñu jël baatu rëb-rëbi ne diw dafay daanu ay rab mm-hmm. kon loolu mooy rab mm-hmm. mooy jinne olof ne ko rab boo demoon tey ci pël yi ñu tuddee ko neneen nga dem ci séeréer yi ñu tuddee ko neneen kon noonu dong la demee waaye moom moomu dafa am lu ci xew lu bëree bari mooy bëri na lu ñu ko tuumaal te nekkul moom wala bëri na spectacle lu ñuy def ndax man damay wax ne boo xoolee sax ci wàllum faj ci rab daanaka boo koy siraan da ngay mel ne ku siraan ay film ndax da ci gis ay xët ay dóor ay war ay dëgg. Mm-hmm. yoo xam ne sax maanaam boo ko doon àtte ci àttab lislaam sharia nangu ko diggante góor ak jigéen loolu waru ci am. wante soo xoolee jinne yi li tax ñu am doole yàlla moo leen dooleel ndax yàlla moo ne yaa ma'sharal jinni qad istaksartum minal ins yàlla moo wax ne bis penc baa bu ñu leen dajalee ba noppi nit ak jinne yàlla dafay wax ak ñun ne yéen jinne yi dama leen a ëppaloon ci biir nit ñi. kon nga gis ne kon ñun lu ñuy bëri bëri bëri te bu ñu nekkoon 16 millions de population jàppal ne am na ñu ñu rax mhm. ñoo xam ne ñooñu ëpp fuuf mhm. te munoo wax ne koñ bii lañ dëkk wala kër gee lañ dëkk te pourtant ñu ngi suñu biir kon foofu la nga war a xamee ne kon problème am na ki nga dëkkaaleel te mënoo koo gis xamoo ndax mi ngi jëflanteeg yow xamoo ko kon kooku mën na la dominer à tout le temps wante nag tekkiwul ne aussi képp koo gis mu amee rab rek forcément dafay daanoo ay crise mhm. am na ñoo xam dañoo amee rab mhm. te rab bi li leen def loo mooy da leen yàqal rek mhm. maanaam bu ñu liggéeyee wala bu ñu jàngee ba war a am liggéey mu bloqué leen fu mu war a déposé ay CV ñu jiitu ko fa yàqal ko fa wala ñu yàq xelu ñi ko war a jël jigéen bu dem ba war a toll ci am borom kër mu dugg ko def ko soxnaam mhm. du nangu kenn ku labat boo ñëwee wax ba war a indi premier kado mu yàq diggante bi wala mu jeexal sa xol ba nga xëy bàyyi kooku te defu la dara di leen xalaat loo ay xalaat yu bon bon bon léeg-léeg nga gis ku yéeg ba ci kaw étage rab bi ne ko da war a xàttar bi ko daanu ci suuf hmm. nga xam ne day essayer di jéem a cëppeelu nit ñi di ko téye hmm. léeg nga gis koo xam ne aussi dafay xëy dem ci waañ bi jël paaka bëgg a boppam hmm. yëpp moo lay mooy xiirtal nit ñi ci jëf bon yooyu kon gis nga ñoom ndekete dañoo doon ay saay-saay yoo xam ne nu ko alxuraan waxee allazi yuwaswisu fi suduri naas kon gis nga minal jinnati wan naas kon gis nga da ngay gis ne ñoom waswaas boobu ñuy def ci biir ni ñi mooy jiix jaaxal sa xol ñenn ñi seen xel lay dugg capturer ko yóbbu ko nga xam ne de temps en temps ñu wér de temps en temps ñu taqalikoo seen sogo mm-hmm. kon gis nga ñoom li ñuy def mi ngi mel ni nit ñi di def rek mm-hmm. nit dina dof loo nit mm-hmm. dañ la def benn trahison bu la metti nga dof da nga gis ku jënd terrain keneen ñëw yaa ngi dégg jaaraat ci suuf ko ba kook jaaree fa dof nga gis kenn ku ñëw di labat fenn benn waaye suufu ko takk soxna sa waage dof kon li nit ñi defante seen biir loolu la ñu rab di def ñun kon nag wuute bi mooy damay xam ne mataar mi ngi nii moom ma def lii ma sañ ko porter plainte yóbbu ko tribunal yóbbu ko police mm-hmm. mais koo xamul xamul foo ko yóbbu nag mm-hmm. kooku moom yaakaar naa kaaraange dong moo la musal moom mm-hmm. kon définition rab loolu dong mooy rab macha allah Serigne Malick Gueye leer am na solo trop macha allah daanaka bu ñu paree ci loolu tamit sëriñ bi dañuy faral di gis ni ay jaamu yàlla bismillah dañuy faral di gis souvent ay jaamu yàlla day dañuy faral di am ay gàllankoor ci ay mbir. Mhm. ci yoo xam ne dañ koy faral di def. Mhm. mais suñuy seetlu ni à chaque fois soo wëlbatikoo. Mhm. ñëw làcce leen. dañ lay wax ni que ni loolu du seen tayef. sëriñ bi lu ni mel lan moo koy sabab. waaw sëñ lu mel noonu sabab bi bëri na mën naa la ci jox lenn rek ci nit ki nga xamante ne yàlla daa dogaloon mu nekk nit ku yiw ku sell musul am benn jafe-jafe. nga jékki-jékki nga sentir na léegi mi ngi commencé di tux te commencé di jël cigarette ndànk-ndànk mu jékki-jékki xeeb cigarette bi di jël yamba jékki-jékki xeeb yamba bi di jël drogue mm-hmm. xeeb noonu ba mu jóg mu dugg ci yeneen ak yeneen mm-hmm. wala nga gis mu jékki-jékki di naan sàngara mm-hmm. wala nga jékki-jékki mu xiital ko ci njaaloo yooyu nekkul mbiram muy góor di jigéen lañ dal te li ëpp ci nit ñi def jëf yu bon yooyu ñu wéete dañuy jooy am na ñoo dañu leen a sixra dañ leen a njibar mhm. te wallahi am na ay alquran yoo xamante ni ci lagaay di njibaree loolu mhm. ndax tey masalan tey bu alquran ne ayna ma takunu yaati bikum llah yàlla bu ne fu ngeen mën di nekk rek yàlla dina leen fo fekk yen ñëpp waaye nga jékki-jékki yàlla ne ci beneen aaya masalan tey euh, bu leen maanaam nit ki ay na maa ay na bi xayri mhm. nit ki fu mu jëm rek yàlla bu fa yiw jëm mhm. masalan tey aaya boobu mhm. foo jëm rek yàlla bu fa yiw yàlla jëm mhm. tey masalan tey ma joxe benn misaal am na ñoo xamante ni am nañ lu ñu sàcc ci ñoom soit da ngay liggéey jékki-jékki nekk ci entreprise ñu sàcc sa benn mbubb wala objet bu taq ci wala dàll wala dara wala karaw wala yu mel noonu yaa ngi dégg nu jël loolu boole ko lu mel noonu lu ma la wax ni aaya yu mel noonu ak xool benn mala boo xam ne mala bi fu mu toll ci coow la dëkk bukki xam nga ne kenn ëpp ko coow mm-hmm. ah mm-hmm. xaj fu mu romb ñu ne ma golo xeet yu mel noonu mën nañoo boole ci yenn ci yu mel noonu boole ko li ma la wax nii boole ko yenn ay alxuraan yoo xam ne pour yàq nit donc ko tax a jóg ndeem sax yàlla dafa ko woon pour yàq waaye yàlla dañuy tëkkoon ay nit lu mel na ay faqute adaabi wa qawma lazina zalamu mm-hmm. yu mel noonu yàlla da ci doon tëkku yéefar yi waaye alxuraan mbóot mee rëy ba yooyu yëpp noo ci def tasrufaat rek jëmale ko ci beneen sens seetaane mën na laa dooleel ba loola am su ko defee loolu bu amee rek nga gis nag léegi nit ki commencé gis nga tey am na ci ñoo xamante ni comme li nga wax noonu yàqale yooyu ñu ngi leen ko def ci commerce bi ñuy def jékki-jékki perte di perte perte yoo xam ne doo xam sax noo koy justifier nga xam ne xam nga ne yow doxaanoo ci defoo ci dara mais xam nga ne perte bi mi ngi am loolu da ngay gis daan na ko def ci dërëm am na benn baat dong bu nekk ci suratu tawba benn baat bu ma la ko xamaloon tey nga bind ko def ci dërëm dem jaay ko ci boutique borom boutique bi day perte. wallahi te mi ngi ci suratu mhm. mooy kan du ko xamal saay-saay. gis nga noonu la demee am na yoo xamante ni ci ngunu ginaar dong ngay dem am loo fa soxla jël loola boole koog dërëm def ko pëndax bu xa nee nañ boo koy liggéey sa kër bu ko laalee sax mu tas sa kër. kon gis nga yooyu ay mbir la yoo xam ne ku xamul sixir rek xamoo ko mhm. kon am na ni ñu ngi ci yoon ñu ngi ci yu mel noonu kon dañuy ñaaxaat waajur yi. léeg-léeg doom dina aw ci yoon woo xam ne day doon tayeef day topp sam waaye teewul di nga jéem a jubbanti ba keroog ngay tële am na si ñoo xam ne da nga xam ne lii nekkul seen hmm. nga dimbali leen jug jéem a xool defal ay ñaan ba ñëwaat ci société bi. Hmm. ndax defar benn nit ba mu normal dafa gën a kawe jaamu yàlla yu bëree bëri ndax nit mooy société yàlla nee na ku faat bakkan mel nga ne ku faat jullit ñëpp hmm. waaye ku dundal benn bakkan fakk anama axyan naa sa jamian daa mel na dundal nga tamit nit ñëpp mhm. waaw kon gis nga foofu jàmm bi sax an naasu la yul sax ay jullit ak yéefa mhm. kon ku dundal benn bakkan dundal nga nit ñëpp mhm. ku faat benn bakkan faat nga ñëpp kon gis nga léegi nit ki soo fexee ba mu mel ne ku xaw na dee nga indiwaat ko société ba mu dund dafa nga jihaat fi sabilillah kon yi waral yooyu ba ci rab bi ñu tudd sànq daf koy def am na ñoo xam ne rab moo leen xiirtal ci ayu bon demal nga njaaloo ji demal nga naan sàngara demal nga sàcc man gis naa kilifa gu am xaalis di sàcc am xaalis yor ay société dem di liggéey mais rab yoo koy def loolu dañuy jékki-jékki rek dem ci benn kaar wala dara dugg fa dugal loxoom fenn ci poche daanaka ko mi noonu soxlawu ko ndax am na xaalis kon bu ñu la waxee ne lu bon rek mhm. ah shayatin yi dañ koy def waaye tam nit ñi dañ koy def mhm. kon ñu bàyyi xel te xam ne lépp lu waaye maanaam seetlu ci jëmmam loo xam ne bokk ci woon su jugee ñaan ci yàlla yàlla mun na ko dindi ba mu set allah. macha allah Serigne tont bi am na solo trop leeral yi am na solo trop macha allah daanaka bu ñu paree ci pàcc boobu tamit sëriñ bi tey hmm. naa nga ma ci njëriñ ñaari mbir hmm. xaw a am bu bëri xaw ko réeré hmm. bi mooy sëriñ bi njëriñul salaatu ala nabi lan ala salaatu ala nabi njëriñam kenn xamul nu mu te dinaa la ci wax lu doy waar moom salaatu ala nabi gis nga yàlla daraam du hasard mm-hmm. di ma may ma tijji téere ndax dama bëgg ñu doon émission boo xamante ni bu spécial lay doon mm-hmm. ndax lépp lu may wax dama bëgg ñu indi ay preuve mm-hmm. ñu teg ko ndax loolu dina dem ci tableau bi ñu leeral leen ko ndax balaa may dugg ci salaatu ala nabi loolu daf ma ñor boo demee ci surat al ahzab di nga fekk aaya bi ma lay wax ndax dama bëgg ñu génn ci cadre werante tey dugg ci xam-xam nga xam ne lépp lu ñuy wax dañ koy teg ci ay dalilu leer naññ bañoo dugg ci ay làmbatu ak itam di créer ay wax di ko wax ndax loolu jëmalewul xam-xam kanam kon lii ma lay wax dama bëgg ñu teg fu leer muy ca suratul ahzab waaw waaw ah, mi ngi nii waaw waaw yàlla dafa wax ci alxuraan ci suratu ahzab gis nga mi ngi tàmbalee ci aaya bi ndax aaya bi am na lu ma ci bëgg a leeral ci kanam ndax boo xoolee dafa ne maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa xaatimi nabiina wa kaana allah bi kulli cheyin alima foofu dinaa fa leeral waaye nga gis mu waxaat la men yaa ayyuha allazina amanu uzkuru llaha zikran kasiran xoolal ñu bind ko yaa ayyuha allazina amanu uzkuru llaha zikran kasiiran mhm. gis nga lii ma la wax nii nañ ko ànd calculer bu ñu paree ku yor sa machine mën nga def vérification soo calculer poids mystique bii daf lay jox trois mille cinq cent soixante quatre trois mille cinq cent soixante quatre lii yàlla moo wax ne yéen ñi gëm tudd leen yàlla tudd lu baree baree bëri yaa alladina amanu uzkurullaha zikran kasiran ndekete baatin bu rëy mi ngi ci aay bii ndax boo xoolee trois mille cinq cent soixante quatre boo ko divisé par deux lu lay jox si yaa ngi sa téléphone xoolal nga xool trois mille cinq cent soixante quatre boo ko divisé par deux da jox mille sept cent quatre-vingt-deux fois deux mille sept cent quatre-vingt-deux mooy lan allahuma salli ala seydina muhammadin rafiu darajaati waduudu kon salaatu ala nabi bu am doole mi ngi salli ala seydina muhammadin rafiu darajaat wa duudu kon ndekete yàlla bu ne tudd leen yàlla nu mu gën a bëree ñaari salaatu ala nabi dugg na ci biir lii mu wax nii mooy 1782 fois 2 kon yàlla junj nañu ne kon tudd yàlla yi gën a kawe salaatu ala nabi kon da cee bokk. soo xoolaatee 1782 fois 2 3564 moo lay joxaat ismu zaat muy Allah boo defee Allah. day nekk 66 nga multiplier ko par 54 ah multiplier par 54 moo lay joxaat lii ma la wax nii kon ndekete yaa lazina amanu uzkuru ñu ne lan mu ne allah kon gis nga baatin bi ni mu ndekete yàlla denc na ci biir aaya bi 54 allah boo waxee benn aaya bi daa mel ne tudd nga yàlla cinquante quatre fois te bi mu waxee tam moom la ñu joxoñ yaa lazina amanu uzkuru mënoon na indi rahman wala rahim wala malik waaye uzkuru allah ndekete tudd yàlla ak julli ci yonent bi lu ko gën a màgg amul yaa ngi wax ci njëriñu julli ci yonent bi boroom xam-xam yëpp maase nañ xam ne julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafay bijji wërsëg képp koo xam ne yaa ngaa ñàkk wala nga am ay jafe-jafe ci wàllu xaalis wala nga am problème mu dund na nga taqoo salaatu ala nabi donte gu gën a gàtt la muy sallallahu ala muhammadin wallahi nit du ko téye ren ba déwén te gisul yokkute ci boppam ndax yonente bi mooy kanzul kunuz mooy ndam mi ndam mi yëpp trésor yëpp ci moom la daje képp kuy wut yàlla te jaaree ko ci moom doo ko am kon gis nga bi ci gën a teer a mooy boobu ndax loolu yëpp àdduna lay am waaye ndekete kuy tudd yonente bi sallallahu alayhi wasallam di def lu bëri ci moom mooy julli ci moom nekkate yàlla day julli ci yow te loolu amul yàlla fu mu ko diggee fu mu ko diggee feneen fudul ci julli ci yonent bi maanaam jëf joo xam ne boo ko jëfee rek yàlla daal di daal jëfaat jëf jooju ci yow déedéet wax na la man nag ku ku man jaa bil xasanati fa lu ashru am saaliha ba tey loolu day duggaat fi ndax nee nañ ku tudd yàlla ku tudd uh, julli ci yonent benn mu yàlla julli ci fukk nga julli ci moom fukk mu julli ci yow téeméer nga julli ci moom téeméer mu julli ci junni ba mu jógi doo xamante sax ay limitam mm-hmm. kon te bokk na ci njëriñam mooy benn jaamu yàlla boo xam ne yàlla moo ñu ko digal boppam nga xam ne jugal ci Malick Guèye wala ci Masamba ndax yàlla moo wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi kon yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kon boo dee bu dee tamit maanaam bëgg yàlla dalaa jafe nga xam ne da ngay taayal ci jaamu yàlla del julli ci yonent bi ak bépp salaatu boo xam ne yaa ngi ko taxoo bu fekkee ne tamit dangaa bëgg leeru xar kanam léeg nga gis koo xam ne da koy jaral mu jën ay tip di diw gis naa ci sama mbokk sëriñ ci bëri ñoo xam ne dañuy jël ay type di diwu di jaxase di mélanger ah te boo ci bàyyi rek nga delluwaat ci lëndëm nga nekkoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam leeram maam bu xasee ba jolli sa xar kanam waxtu wu nekk looy gën a julli ci moom di gën a am leeru xar te leeru xar kanam dafa bokk ci mandargay jullit te tamit nit ki bu ko dee def du soxor ndax lay waral ak soxor lay opérer dindi ko ci yow kon mbokk yi julli ci yonent bi amul lu ko gën a màgg salaatu bii nag muy allahumma salli ala sayyidina Muhammad rafi darajaat wa dudu da ngay dégg rek ñu ci wax ay bayre bayre ji gën tuuti li muy joxe toujours koy dégg ci internet bi ay bayre bayre déedéet bayre du dara kii dafa lay boole ci ahlu rafi darajaat wa dañu am lii ab afam bi am na ay ñooñ yoo xam ne dama am def ba dugg fa am na lim boo xam ne boo ko ci liggéeyee dangay ngay daal di bokk ci ahlu ba <laughs> kon gis nga njëriñu salaatu bi am na doole am doole goo xam ne kenn xamul dayam fu mu toll waaye njëriñu salaatu ala nabi dafay taxaw taxawaayu sarax ma jox leen benn secret su fekkee ne yaa ngi am sarax boo gis masalan tey nga gis xar wala bëy wala nag bu fekkee am nga ko nag anfiqu fi sabilillahi génneel nga def si yoon yàlla ndax ña ngi koy jox soxla nañ ko soo ko amul ma ne la yonent bi mën na la ko remplacer calculer la nga soxla tey bu dee xar la wala nabi kenn xamul ay dayoom buñ ci wax duñ ci gaaw a jóge mm-hmm. kon li ñuy digal nit ñi daal mooy lépp looy def ndax Sëriñ Tuubaa boo dee ci Masaalikul Jinaan dafa ne ginnaaw bu farata yi jàllee lépp looy def lu dul julli si bi amul amul farata bu ko nekk ci kaw maanaam daal bu farata julli ak nangam nangam bu paree beneen farata bi ngi koy doon kontewaat nga ne bu doon faraid la mooy julli ci Yonent bi alayhi salaam kon gars yi na ngeen julli tey sëlmal ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon noonu mooy leeral bi allah macha allah Serigne Malick Gueye leer li am na solo trop xam naa ni sax dañuy continuer tuuti mhm. ci pàcc boobu noonu si mbirum njëriñ mhm. aspect yi maanaa yi mhm. ci wàllu salaatu ala nabi bëgg naa la waaw daanaka mhm. dafa nekk lu doy waar. Mhm. ndax astaxfirullah yàlla da cee diggee moom tamit comme ni mu diggee ci julli ci yonent bi. fa qultu astaxfiru rabbakum innahu kaana gafaara yursil samaa aleykum midraara wa yumdidkum bi amwaali wa banina wa jaalakum jannaat wa jaalakum anhaara yàlla nee na lu ngeen di gën di jéggalu seeni borom nee na day mel ne li ngeen di wut yëpp ci àdduna da ko jox ndax innahu kaana xafaara yursilu aleykum idraara maanaam tey taw bi yuy jàmbat tey bu tawee taw nañ dem toog ñu daal di commencé di tuub di jéggalu suñu borom mooy mag ñi daan def baaw naan loolu dong la woon te tey biñ ko defee rek bi sëriñ bi wootee ci journée xasida la 11 ñu bokk fa def tuubal yàlla suñu borom gis nga taw bi daa dem ba nit ñi dañoo waaye ndekete wayum dit kum bi am waali ma bani na boo dee jéggalu su borom boo tëyee am doom jigéen bi taxaw ne man maa ngi naan ay comprimé ba sonn wala maa ngi naan ay ñàqu siti maa ngi def nangam mënoo am doom taqool ak istighfar astaghfirullah ndax yàlla moo la ko ci dig boo bëggee alal wayum dit kum bi am waalin ndax foofu dafa ne yàlla nee na dama leen ci dikkee alal ba ngeen doyal dama leen ci bànneexal alal wajaal lakum jannaat wajaal lakum anhaar waaye li gën a garaaw mooy nekk astaghfirullah da lay dem ba joxal àjjana ak dex yaa ci nekk mooy dexu kawsara ak dexu nangam ak nangam nekkate istighfar rek moo la mën a may loolu. tey bu nit ki saxoo astaghfirullah saxoo salaatu ala nabi na ko leer ne jàpp na ci buum goo xam ne bu bàyyiwul fa koy cëppal rek mooy àjjana te àjjanaam day tàmbale fii ci kaw suuf ndax istighfar boobu. da ce am lim bu am doole ndax boo xoolee aaya bi ma la wax sànq fa qultu istaghfiru rabbakum boo tàmbalee ci ista istaghfiru rabbakum rek ma bañ a guddal ndax temps baa ngi dem mm-hmm. ba ca fa aaya ba yam mm-hmm. ah ba ca anhaara istaghfiru rabbakum ba ca ilaa anhaara boo yoree sa sa sa sa téere nga xool ko boo ko calculer da ngay am six mille quatre cent quarante 6440 mooy lan ismu jalaal fois 10 644 fois 10 waaye diviser ma ko par 92 nga xam ne mu la jox 6440 diviser ko par 92 nga xool lan la lay jox. gis nga mooy 70 Muhammadu kon 70 mooy kun mooy 70 ah Muhammadu 92. kon gis nga nekkate mbóot maa ngi fii ci biir kon yënd bi lépp loolu laal rek ma nga ci biir kon maa ngi leen jox lim bi ci istighfar dangaa tëju dangaa bëgg am doom dangaa bëgg yàlla tàbbal la àjjana dangaa bëgg am alal dangaa bëgg yàlla di la tawal sa tool bi naat del def cent 6440 loo ci bëgg yàlla dina la ko defal incha allah taala kon Serigne Matar njëriñ yu am solo mu ngi ci diggante salaatu ala nabi ak istighfar. <laughs> macha allah Serigne Malick Gueye leer am na solo trop xam naa ni pour ko yamale ci ñaari njëriñ yooyu xam na mm-hmm. yeneen ak yeneen mais yoon yamul ci benn. dëgg la lu ñu koy waxee. Mm-hmm. si nag li lépp xaju ci nit dëgg la. xam naa dinañ ko tënk foofu rek. Mm-hmm. ci ñu continuer tuuti tamit waxtaan. ñu waataat ci waxtaan bi. continuer waxtaanee tamit jafe-jafe yi tamit waxtaanee tamit. luy secret luy leer yi. bëgg nañ tamit ci loolu. ci mhm. mhm. mhm. ay sax yoo xam ne. dafay aajoo ci moom. tey loolu sëñ Makhtar ay sarax maa ngi ci bind téere boo xam ne léegi moo imprimé ko incha allah en français pour képp ku muy nga xam ne problème boo am rek sarax sàngam da koy résoudre dinaa tëjee loolu waaye ma leeral tuuti ci xaatimu Souleymane ñu tëjee sarax yooyu. gis nga da ngay dégg xaatimu Souleymane mm-hmm. mooy ni ñu ko xamee ci sëriñ yi waaye xaatimu Souleymane sëñ Matar lu doy waar la passe-partout la xoolal cat rab mm-hmm. wërsëg dindi liggéey xoolal lépp lay def bàyyiwul dara waaye nag ñu bëri li xam mooy raddu zimaam mooy bi nga xam rek tàmbalee bi lu sol li sol li génn fee su déret bëri na ay façon tey dama leen ci jàngal li ñuy wax taxta saalis boo déggee taxta saalis mooy sous les trois ndax juróom-ñaari kër la dama koy jàngal sëriñ si ndax awma xolub kañaan ci dara dama bëgg ñu mokkal ko mokkal gu leer naa ñi di ko liggéey lépp luñ la ci wax boo ko defee gis ko xoolal bët bii mooy dimanche moo tàmbalee moom laa njëkk a dugal xoolal dama naan une deux trois mooy taxta saalis mooy sous les trois une deux trois ma dugal benn dimanche une deux trois ma dugal benn dimanche une deux trois ma dugal benn dimanche ma def une def deux def trois dugal benn dimanche def une deux trois dugal benn dimanche def une deux trois dugal benn dimanche yaa ngi dégg est-ce que su ko defee bi ma defee waaw une deux trois dugal dimanche waaw nii la demee ah léegi ma ñëw lundi ah ah une deux trois lundi une deux trois lundi une deux trois lundi une deux trois lundi une deux trois lundi une deux trois ah non une deux trois lundi ni la demee mardi ñëw mardi ah une deux trois mardi waaw une deux trois mardi gis nga ku xool di nga comprendre li ma bëgg a wax léegi gis nga ne kon boo xoolee kër yépp ah benn par benn bët lay duggee ba jeex ni mu amee taxta saalis noonu la amee fawqa saalis am na foo xamante ni da ngay tàmbalee ci suuf di yéeg ci kaw gis nga nii soo ko bindee ba pare nga xam ne day duggee dimanche beneen bi ñëw lundi beneen bi mardi ba egg xoolal loo ci bëgg a faj muy rab moo xam liggéey moo xam télé moo xam lu mu di doon soo ko joxee nit ki mu sangu ci naan ci yàlla da koy kàttanal incha allah wéral ko ndax dafa am lu am solo mag ñëpp dañoo dañoo ànd maase ne alif laam mim laa ilaha illa huwa xayyul mooy secret lii loolu nag du ma ci dugg au fond mooy secret xaatimu Suleymaan alif laa mim allahu laa ilaha illa huwal hayyul qayyum mooy dafata 484 mooy secret bi nga dem ci suratul ahzab ba tey nga dem ci aaya 40 xool yonent bi mi ngi jot nubuwaam ci 40 ans aaya bi mu nekk ci 40 yàlla ne eh, maa kaana muhammad aba ahadin min rijaalikum walakin rasulullah wa xaatimi nabiyina wa kaana allah bi kulli shay alima yàlla na yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkul bàyyi kenn ci yéen waaye nekk lu dul yonente yàlla te yàllaa ko yónni damaa bëgg ngeen xam ne yàlla xamal na ko lu bëri xoolal boo ko déchiffré nga calculer xam nga la jox 3872 xam nga 3872 mooy lan mooy 484 fois 8 alif laam miim allah laa ilaaha illal qayyuum juróom-ñetti baat la xoolal une deux trois quatre cinq six sept huit muy allah muhammad di samaaniyati xuruf alif laam miim allah laa ilaaha illal qayyuum mooy 484 moom la ñuy dafa tax moo boo ko multiplié par 8 mu jox la 3872 ndekete bi yàlla di wax ne bi doonul bàyyi kenn ci yéen. lu dul ndaw yàlla la yàlla roof na fa ci aaya bi huit fois muy valeur am mel ni kon boo waxee lii mel na tudd nga ne lii huit fois kon gis nga ni baatin amee ci biir alquran kon lii nag boo déggee ñoo asraar lii mooy asraar asraar ay chiffre la yu calculé ay baat la yooyu coqati di taqale loolu mooy asraar waaye nangam day faj nangam rek nga bind sangu naan loolu ku ne mën na ko mm-hmm. mais lii mooy lasraar te nag lii yàlla moo koy ilham ak yàgg di gëstu ak yàgg di jàng alxuraan yàgg di xool secret mag ñi kon ci gàttal li ñu bëgg a développer lépp xaju ci waaye nag ñu xam ne daal asaraar a ngi nii nañ bokk di ko jàng te xam ne ba léegi géej la goo xam ne amul tefes kon sëñ Matar xam naa mën nañoo yemale fi jotaay bi ndax yéen fi ngi bëgg guddi nag. <laughs> balaa ñoo tàggali ko rek. bëgg naa bi ni ko tëggee xam naa ni xaw na la tënk mm-hmm. faral di seetlu dafay am ay mm-hmm. mm-hmm. daanaka duñu bëgg a tap duñu bëgg a sangu. Mhm. duñu bëgg a takku. Mhm. waaw koo xam ne bëggoo bëggoo bëggoo sangu bëggoo takk bëggoo naan saafara bi moo ñu jàngal ay dog mhm. defal la ay dog ci zikar wala ñu defal la ay dogu yaasin am na secret junni yaasin wallahi boo doon wut ministre sax wala ngay wut député wala ngay wut présidence am na lu ñu la koy jàngalee ndax yaasin xajul ci dara jàngale ci mille am nu ñu la koy jàngalee. génn lay sarax yàlla dalay fal ci kàttanu yàlla te kenn du la mën a fol bu fekkee ay rab la sonal kazalika ba munoo sangu munoo takk mun am na ñoo xamante ne seen rab sax day bañ sangu na nga ñu lay woo di la wax man dum naa ba damay sangu mujj gi sama rab sax dafa mel waaye doggu zikar tam noonu la mel tey lu mel ne laa ilaha illallah amul lu mënta dindi ci lu mel noonu ndax ku ne xam na ne amul benn baat booy teg ci kaw balance mu mu wat ko moom lu mu teg lu mu fekkee ci kawam rek daan ko muy laa ilaha illallah su ko defee njëriñ yi nga xam ne mu ngi ci suratu Qurayshin kenn xamu lu mu toll ilaa fi Qurayshin wax nañ ne boo ko dee liggéey ci limu at amahum muy cent soixante cinq wax nañ boo ko tim boo ko téyee ci lim boobu xaalis moom dara ko ñàkk incha allah taala boo dee def commerce da ngay ndax yàlla dafa wax ci alxuraan ay aay yoo xam ne da ngay xam ne lii li ta ko dox jug du caaxaan ay rafaanaa makaana aliyan ah, rafaanaa laka zikraka ah, warafaanaa baadoom foo ko baadi warafaanaa nangam gis moo tax yooyu boo xamee secret yi da ngay avancer kon nag sëriñ Matar nañu bokkandoo gëstu alquran sarax bi nga xam ne nag yaa ngi ci doon wax ñu tëjee ko mooy sarax buy bijji wërsëg dama leen koy jox bu fekkee ne da ngay bàyyi ba bisu àllarba nga wut mbiskit mu bëri guro gu bëri tàndarma bu bëri tàngal bu bëri def ko ci benn bool wala leket gu bees di tibb di joxe rek doo compter di tibb di joxe boo ko saxalee àllarba bu nekk nga koy def incha allah taala yàlla day yokk sa wërsëg bu baax a baax moo xam da ngaa nekk bitim réew moo xam da ngaa nekk biir réew mi kon loolu may naa leen ko ci a laay taala mhm. macha allah Serigne waxtaan bi am na solo trop macha allah. Mhm. leer li am solo trop xam-xam bi wér na macha allah. Mhm. comme ni ma ko waxee léegi waxtu nekk na li xam ne xaw na la dëgg la lool dëgg comme ni ma ko waxee sànq li yoon yamul ci benn. dëgg la te lu dif ci nag lépp xajul ci ci ni xam naa ko fi incha allah ba beneen yoon. incha allah Serigne Malick Guèye lan ngay waaw li ngay tàggatoo mooy dog ngante ci fóore yëpp li mu doon jàngale borom xam-xam yëpp xam ne njàngale metti mën na maa juum ci biir njàngale mm-hmm. waaye su ma juumee tam ngeen gàggante ma rek mm-hmm. ba tey may defaat message ci ñun sëriñ si du ma ci tàyyi nañuy jubal dëggal leeral bu ñu kenn yàpp bu ñu kenn fontoo mm-hmm. nañ wut xam-xam fas yéene koo jëfe bu ñu yàkkamte dara suñu àdduna lépp lu ñu war am yàlla dañu ko tàggatal jox ñu ko bu ñu ko defee rek dinañ am jàmm yéen ngeen am jàmm askan wi yëpp am jàmm kon li may tàggatu mooy in uridu ilal islah mastataatu wa ma tawfiqi illaa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib salaamaaleykum wa rahmatullah